برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Vamos lá agora. ああ me Merci. you Amen. Vamos, menino, nosso Nada con يحكون أخيرا بالأخرى على القبر والليل سكون I'm Thank you. Mm-hmm. Thank you. 那边有。我昨天他妈的。 que La Dios solo nos camina, solo la hoy solo la This way.

possible. nañu leen di leen ziyaara te di leen ndokkeel maamam ñoo ko doon def ci jamono baay ñoo daan jiite baay mole. ñoo ko bokk muy jiite ñoo ko mos Não leen di gërëm sëriñ bi ne mu ngi ndokkee ñëpp góor ak jigéen mag waa pay ak mbooleem jullit ñi ak fuñ mën di nekk ci àddina bi yal na yàlla nangu ñu koor yaara bi

mbokk yi imam na di liggéey ak naafila gi tey ji bés bu njëkk moom lañ def onze heures et demie bés yi ci tegu yëpp julli gee ak naafila waxtu timis bi itam fi toll nii mu ngi toll ci sept heures vingt cinq. waxtu bi ñu war a jàpp itam mu ngi toll ci cinq heures vingt cinq waxtu bi ñu war a jàpp itam mu ngi toll. ci cinq heures vingt cinq ci cinq heures vingt cinq ci fajar. loolu lañ leen bëggoon a wax rek. yal nañu yàlla defal tawfiq yaa rabbi. dañ ko daan laajal. man man bis bu nekk bi dañ ko daan laajal. bés bu njëkk bi nag dañ daan laajal imam bi microphile dénkee tabax yi ñu leen koy laaj ngeen

ñëw leen

लोगों को कौन सारे को मैंने पास है उन्हें वेलकम Yongler Vitamin Sistem Cacan Weru Uyok Wursegera Werler Muhammad Kiremi Intensi Germane Lai Bitik Bitik Bala Chapter Lorenzi Saparama Temukan Bosen Bo Awesome.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 wàllu yoon incha allah suba ñu ngi leen di jox dig daje ci cadre artisanat bi incha allah ginnaaw suba man ngeen ko di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañ ko teewaay ak yu bëri lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu lépp luñ ci ñaan yàlla ko yàlla برهام باء naan Thank